soxna Sénégal ngoog dégg ngeen ko ba tey dañu ñëw ci ñi nga xamante ne ñooy marabu ñi ñooy marabu sonko yi. Mm. sonko am na ay sëriñ yu bëri yoo xamante ne génn nañu ne ci moom la ñu fare am na ci ñoo xamante nuy génn sonko dina lii sonko dina laa sonkoy lee sonkoy laa ñooñu ndax soxna bu Sénégal ñooñu li ñuy wax est-ce que dëgg la. waaw man de gëwuma leen. Mm. ndaxte dangay nekk ci réew gis kenn ki nga xam ne Sénégal ñëpp bëgg nañ ko rek nga daal di abusé. Mm. ngay topp di wax ci moom pour bëgg Sénégal di la seetaan ndax ñëpp bëgg nañu Ousmane sonk mhm. waaw man li ma gis daal mooy Sénégal bëgg nañ ko man ci li ma mën a wax mooy yàlla na ko yàlla may ndam gaa rek man du ma Sonko mhm. heure bu waxee vidéo naa ko wax. Mhm. waaw mais ñiy wax ci loolu man gaw ma leen xam nañ ne rek Sonko ñëpp ko bëgg. waaw mais man damay ñaan yàlla jël Sénégal yëpp teg ko ci loxo mu nekk président. mu nekk président waaw yàlla rek jubal ko ba ñu bëgg li ñu wër ci président yëpp nekk ci moom. yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. ku ci mel ne Cheikh Bara Ndiaye jamono yi gis nga coow li ma amoon. Mhm. am na ay vidéo yu ñu génnee. Mhm. Euh, wala ay audio yu fuité. Mhm. yoo xam te ne moo ci waxoon ay kàddu yu ñàkk Sonko. ndax man soo seetloo suñu dernière vidéo yi wax naa ci ne naa la Ousmane Sonko ku ko jege dina ko wor. wax nga de wax nga waxoon nga waxoon nga waxoon ku ko jege dina ko wor. parce que bëñ dafa weex. mais deret rek moo ko lal. xol bu nekkoon fii di nga gis sax sa yaay daw. mais yàlla dafa bëri sutura ba mu jëlee xol làq ko fii. ndeysaan. waaw ndax man lu mu mënti doon rek Sonko nekk président gënal na ma lool waaw ah, waxuma ko rek pour nit ñi li ñuy wax mais dama koy wax pour yàlla may ko ndam moom. moom Sonko waaw ndax yaakaar naa ne moo te li fi nekk waaw. Hmm. ba tey ci moom la ñuy des jamono yi am na benn lu mu xewal nemmee ko tuur la ko tuddee. Hmm. di wër ci région yeeg biir Sénégal mais fu mu dem daal gars yi topp ko rek takkadeer yi. am na sax jamono yi dañ ko sànni lacrymogène ak cortège bi mu yore woon euh, loolu ban jàngat nga ciy waaw mooy li ma lay waxaat rek ci Sonko yàlla dakaa tàccu. Mm. xëy na rek euh, gàllankoor yi ko Macky di teg bari na. Mm. mais rek yàllaa ko tàccu daal. Mm. loolu rek mën a wax. waaw gis nga nemmeeku tur bi daal lu am solo la ci. lu am solo la. lu am solo la fi taxawaayam rek moo tax xeex gi bari. waaw. moom daal gis nga ko 2024 daal. waaw bëri na rek ay dëgg sarax. mais yàllaay fal yàlla yàlla def li gën. fii rek 2024. ah bëri na ay dëgg sarax torop torop torop. bari na ay yàq ak ay wor. moom Sonko waaw ndax ñi nga xam ne dañ koy jege di ko reetaan ñu leen di gis ci télé bi di leen gis am na ci ki nga xam ne bu doon sagoom tey moom mooy falu moom la ñuy gën a xam sax ko sonk hmm. waaw. Pape Djibril Fall xam nga ko. jamono yi génn na. tamit aussi ay vidéo yu yàgg yu mu defoon depuis 2017 mel nañ ko génnee. Mhm. xam naa nag ñi nga xamante ne ñoo fare ci wàllu yooyu ñu bari gars yi jiñ nañ ko gars yi sonko yi. Mhm. nee nañu vidéo yooyu daf ci waxoon ay kàddu yu ñagas jëmale ko ci artistes yi. Mhm. nii dañuy ñaanaatu dañ koy àbb ay yére dañuy ñaan ay 5000 dañuy amoon dara ak yooyu xam nga lu ne moo yàq leen ko ba tax na bare na polémique. Euh, Pape moom moomu ban gis-gis nga am ci moom ak kàddoom yooyu. lan moo tax ba problème bi amee ba tey tey la koy doog a wax ñu ngi koy doog a feeñal xëy na yàlla da koo weer. nee na 2019 la ko waxoon. ah man ma jëw lu ma nar a defal la di ko waxaat du ma ko def. waaw hmm. ah. ndax wax na dëgg wala fenn du ma ci wax. waaw hmm. ah, kooku moom du wax ci moom dara. moom Pape Djiby waaw moom it ban gis-gis amoo loolu ci moom fi mu toll nii. gisuma ci <laughs> soxna Seynabou koo bëgg gis-gis ko <laughs> euh, Bambaly Seck. Mm-hmm. moom it euh, jamono yi nit ku nuy jiiñ koo xamante ne jigéen dafa jékki-jékki rek nag wax dëgg yàlla da nga ko ëmbal mm-hmm. soxna Sénégal na waar de mu bañ ko ba ca naaj ba xale bu jigéen bi génn na neen dafa am moom doom mm-hmm. waaye daal waa ji bañ na loolu doy na waar tamit soxna Sénégal waaw jigéen rek comme ne yow la rek yow la loolu moom xam naa ko mais rek dañoo nekk ci réew mi nga xam ne takkal nit dafa dafa gaaw réew mi fu mu nekk takkal nit ki ba mu takk répp dafa gaaw trop ma jaw jigéen moom comme na yow la rek yow la mais dëkk bi fi mu nekk pour ñu takkal la dafa yomb comme bonjour ndax di nga waxtaan ak soxna Seyna bu sax mu yor say yu yàgg jékki-jékki commencé la chantage dafay bëri. moom de waa ji nee na moom def nañu test sax waaye moom wetti ah, mooy li ma la wax rek Sénégal la ñu nekk waaw tuumaal nit dafa yomb waaw. garabu jabet gars yi tamit dañ koy réclamer. waaw nee na mu soxna Seyna garabu jabet jabet dafa lëmbee réew mi. maa ngi ciy nuyu waa Europe waa États-Unis ak ñëpp euh, sama garabu jabet ah ci vidéo yi ku ci gisul sa bopp mën na commentaire wala mu woote ne kii day fen mais de faj naa ci nit ku nekk ak jabetam 12 ans waaw hmm? ah, samay garabu jabet amul fenn lu cher la rek prix bi prix bi fi muy toll fan. buñ ma wooyee rek dinaa leen ko wax. waaw soxna Sénébu xam nga man ma jaar gars yi sax ñu koy réclamé nee na soxna Sénébu am na ci yu muy joxe prix mais am na ci yoo xam te doo dégg prix bi. loolu gars yi koy réclamé ndax man garabu même même app sax dama koy wax ci samay vidéo ne la app temps di nga gis. Hmm. mais am na ñi nga xam ne du ma leen jox app. Hmm. parce que yow bu dee ba nga juddoo lañ la yàq ma ne la mën naa laa faj ci juróom-ñaari fen waxuma la dëgg. Hmm. il faut nga jël traitement normal. lu mel ne diabète traitement mën na nekk un mois dix jour hmm. deux mois vingt jour ba trois mois dix jour mooy laas mooy laas waaw da ngay gis rek wala ñu delloo la hmm. ndax ñun du ñu yoreel kenn dara waaw hmm. mais traitement bi moom da nga koy topp da nga koy topp normal da topp normal waaw mais suñu garabu li liñ ci mën ñun Sénégal amul keneen keneen ku la ko jox ci ñun la ko jëlee moom diabète waaw mais daal prix bi doo ko joxe déedéet dinañ la fas bi yëpp dafa mel ne péri bi de soxna seen bu aayu ci. ah bàyyil ba ñu woo ma rek parce que am na ñi nga xam ne dañ koy bëgg mais yàlla du tudd ma jox ko tamit. Hmm. bu ma la seetalee boo ko warul am ci man du ma ko jox. karité bi daal moom aajowul ay seet. mais ankay di nga seetlu. Hmm. karité bi lépp balaa ma lay jox dara man il ma xoolal la. Hmm. waaw ah, nga xoolal la am na ñi nga xam ne des fois lu jëm nag ci wàllu karité gi yaa ngi faju pour wàllu ngóora. fekk na yow dañ la ko yàq dañ la ko def. def nañ la li nga xam ne sa loolu dootul baax. léegi rek bu ñu la xoolee ma mën ci dara du doon damay jaar ci karité bi mais feneen lay jaar faj ko faj ko kon dal képp ku fi ñëw tële waaw moo xam mu dab su ma la seetalee su ma ci mënee dara dinaa ko faj mais su ma ci mënul dara dama lay gàntu mais nag am na ñoo xamante ne da leen dab ñii mm-hmm. dañ ko judduwaale mm-hmm. moom ñaar ñooñu képp euh, ndax ñoo bokk faje ngóor a judduwaale dama naan des fois am na am na fu ma naan waxee amut mm. ndax des fois li ma la wax rek dangay ngay nekk ci kër di sëy say mbokku jëkkër bañ la di a yàqal mm-hmm. ba yàqaale sa doom xale bi day màgg rek gis ci moom yoo xam ne du ko neex te fekk ni jiitu na sa judd. Mm. waaw loolu la moo tax man ku ñëw ci man damay bëgg seetal la ba pare doog la laal. Mm. soo xamee ni kii da ko judduwaale moom. ah bu nekkee mu man daal ku ma mënul ci moom dara bul jéemaat bul dem feneen. xam ne keneen du caay. ah lu ñu tëlee. Mm. ñu jéem liggéeyal la. gisoo bëgguma nga dem feneen ndax doo gis. soxna bu ni ngay waxee dafa mel ne Sénégal na ko bëgg a téye sa loxo fi mu toll nii. déedéet waxee ma foofu maanaam dégg-dégg lay laaj su ma la waxaree euh, su ma la joxee garab. ah dama xam ne ni seet gi bare kat ku tourné di seet soxna Seynabou nee na boo ñëwee ci moom bu fekkente ni mënul caw dara jarul ngay dem faneen. ah boo essayé waatee tamit dinañ lekk sa xaalis te ni la soxna bu mën a leeralee lekk bu ma la defaralee gisoo ma jox la xaalis am na ñi xam ne duñ la delloo dara. tëdd mujj fenn da leen di jaral ñu toog ak seen borom ëllëg. Euh, comme ni nga ko waxee ñi nga xamante ne ñoo nekk Sénégal bu nu bëggee nga seetal leen dañu lay woo nga fixé leen prix mais ñi nekk bitim réew ak Sénégal ndax ñooy bokk prix yi. Euh, yamuñu prix rek ñoom ñoo gën a cher parce que képp ku nekk bitim réew sa seet 35000 la. 35000 la te buñ la seetalee ba pare dañ lay gis macha allah buñ la gisul dañ lay delloo sa xaalis te dañ lay gis sax. Mm. waa ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew. Hmm. boo xasee nekk Gambie rek génn nga Sénégal. génn nga Sénégal si 735 000 la. 735 000 nekk Sénégal moom pour nga wax leen prix faaw na wala moom. dañ may woo. Hmm. soxna boo ko joxee sa xaalis. waaw mu seetal la gisoo. da lay delloo ci saase. Hmm. seen numéro da koy affice ci suuf. ku ma ci seetal gisoo na leen woo jeex na. loolu ku ma ci liggéeyal gisoo na leen woo. loolu leer na jeex na. mi ngi noonu mbokk internet yi xam ngeen ni soxna Seynabou loolu dellusiwaat tey gis ngeen ko heure bu ngeen ñëwee ci moom ñun ñi sax jàkkaarloog moom dañuy dégg lu yees beex loo xamante ni ci réew mi barewul ku naan voyant la wala voyante koo xamante ni day ose taxaw wax li nga xamante ni moom la soxna Seynabou di wax mais soxna Seynabou ba tey dañuy ñëw ci sa relation ak këru diine yi mhm. ban relation la këru diine yi ndax ñu bare wax dëgg yàlla bëgg nañu xam soxna Seynabou mm-hmm. ku ko xam-xam ni day def faral di def social mm-hmm. ci këru diine yi mm-hmm. ak ñu baax ñi loolu ban relation nga ci am ak yeneen këru diine yi waaw soxna Seynabou rek ku oyof la mm. ku bëgg waa kër sëñ Babacar Sy la mm. ndax damay faral di wax maam da baax Malick moo reyal sama papa xaar tuddee ko boppam yar moom maam da baax moom maam da mm. nekk nijaayam jaayam rek daanaka mais rek ñëpp laa bëgg su doon tey lim tur dagan na ci caméra bi dinaa ko lim ndax ñu bari dañ may wonaan ma fan nga toj ba chaque jour ngay digale Tiwaawan ñëpp benn lañu. ngay mm. benn lañu li may jëlee sama tànk bi bés bu nekk aw yoonu Tiwaawan àjjuma bu jot mm. noonu laa koy defee des fois Touba xëy na jot moo dul am mm. mais nañu bàyyi di séparer ku fonk waa Touba la ku fonk Laayeen la ku fonk Ñaseen la maa ngi nuyu yaa Xadi Ñas mm. yàlla na ko yàlla defal jàmm may ko gudd fan ku ko mm. bëgg laa mm. te xam na ci dara mais man dama xaw a weex donc chaque fois dañuy wax lu tax ngay wax ci lii ci muriti mosuma wax ci muriti dara dama leen a bëgg sama xol ndax man sama taawu yaay murit la maar margéré du ma wax ci ñoom lu bon parce que sama kër la man dama bëgg muriti torop damay estati sëñ Fallou damay estati sëñ Touba gaa man ñëpp xam nañ ni ma mel ci sëñ Babacar Si aw ma ci sago sax boo ma boo may nax sax bëgg naa ci sëñ Babacar si mm. mais rek ah ñëpp laa bëgg de. waaw niñ may woo rek di ma ko wax metti na ma torop mm. am ñu lay woo ñoo waaw parce que damay gis euh, ci euh, kii bi si wàllu euh, joueurs yi. Mm. may dégle ñu dem Tiwaawan lu ma gis la te bañ ci demee dañoo gis ndam. mais chaque fois dañ may woo affaire bi nekkul Tiwaawan kese de lim Tuuba. loolu lu ma metti la ndax man yëpp laa boole waaw. soxna Seynabou ñi ngi waajal def coupe du monde. Mm-hmm. ñi ngi dem. Mm-hmm. amul lenn loo ci gis loo xamante ni wala ay sarax yooyu joxe yoo xam dina tax équipe bi dina sore def résultat ci coupe du monde. nañu jàllaat Tiwaawan. Hmm. comme nag loolu rek a tax ñuy wax. Hmm. nañ jàllaat Tiwaawan am na dara buñ fa ñaanee dina baax. Hmm. da nga génnoon ci coupe d'Afrique bi wax ko. mu gis résultat bi ci am nga waxaat ko la même chose ci coupe du monde bi. waaw nañ demaat buñ fa demaatee ñaanaat dinañ fa gisaat ndam ren boobu macha allah lépp luy lay jaar. fa lay jaar. loolu leer na soxna Seynabou dafa am ñu bare ñoo xamante ni man mii dañ may woo. di ma laaj waaye yow soxna si nga seet si woon moom seeti woon dafa mel ne ndax na borom kër moom ndax. moom daal doy waar gars yi daal moom ñi ngi laajte de <laughs> xaw ma nag loolu leen tontu. waaw ñi ma koy laaj bari na. Hmm. Euh, soxna Seynabou amul borom kër. Hmm. mais rek xaarul kenn. Hmm. ndax dañ lay gis ci YouTube bi nga nekk jigéen. ñu yaakaar ne di tax gaa yi dinañ ma woo de ku ma woo nag dinaa la wool soxna Seynabou voilà. waaw parce que dañ lay woo di la mm. di la woo di la sonal. Mm. te ñun ay taalibe cheikh lañu ñu bëgg toroxal benn doomu aadama. Mm. nit du weex bët. du ko gis ci kanamu écran rek war nga yaakaar ne war na jàll sa ginnaaw. liggéey boo ñu tax a jóg. sinon du ñu nekk fii sax di taxawaalu. ndax ku ñu xam dëgg. xam ne pour nga am ñu yombul. waaw foofu lay waxee. soxna Seyna bu amul buroom kër. mais xaarul kenn ci ginnaaw. waaw moom nay jaamu yàlla di dem Tiwaawan. loolu rek laa soxla. wala boog mu jaar ci Madiaw. gars yi bu ngeen bëggee waxtaan ak soxna si woo leen ma ma lijjanti ko mi ngi noonu beneen bi mooy soxna Seynabou uh-huh. euh, fi mu toll nii dafa mel ne li ñu waajaloon yëpp kii nañ ko. dañ bàyyi nga wax sa kàddu gu mucc ak looy dénkaane ci réew mi. waaw mooy jàmm rek. Hmm. jàmm rek lay ñaan yàlla def ko senegal gis naa rek coow boo xam ne dina ñëw ci côté Wally Seck. moom Wally waaw. Hmm. coow famille lay nekk. mu ne de ba léegi coow li jugoon na ndax moom Bambaly Seck yi ma wax sànq ak Mandiaye. Mhm. ko ne xam na ni ne Mapenda ak Ousmane Seck ak euh, Thion ñoo bokk ndey ak baay. ñoom mhm. jóge nañu ci labelam. dem nañu ci gis naa daal coow bu mhm. metti boo xam ne dina ñëw ci fami Waly sekk mais rek coow li du mujj fenn. ndax Waly sekk famille baayam ñoo ko sonal li ñu ko sonalee du ci moom mais papam la ñu mosul woon supporté. mais Waly yàlla moo koy sàmm du mujj fenn allah loolu daal nga gis. loolu laa mën a wax te borom kër gu ci nekk booy génn dangay ngay def sarax bu weex. sarax bu weex waaw muy ñaanal Sénégal yëpp am jàmm. Hmm. mi ngi noonu mbokk yi soxna Seynabou la ñu seet si woon moom heure bu ngeen ko déggee ni ma leen ko waxee eh, di ngeen xam ne dégg ngeen koo ne li mu xam bari na te lu mu jàng lu mu donn la ci ay këram ay maamam moom soxna Seynabou képp koo xamante ni soxla nga ko yittewoo nga ko soxla su mu mën a doon nanga xool si sunu plateforme yi nga xamante ni mooy daw TikTok. ak Instagram ak euh, sunu euh, sit bi di Sénégal 7 ak compte YouTube yëpp bu ngeen fa duggee di ngeen gis numéro yi nga xamante ne mooy affiché ci ci plateforme yi bu ngeen ko bëggee jot ngeen woo ko ci numéro yi incha allah saafara bu ngeen am ak jàngoro moom soxna Seynabou dina ko saafara dana koy bàyyi mu tàggoo après lu jëkkati jotaay bi. incha allah mm. euh, Madiaw sa kàddu rafet na. Mm. may wax ne rek soxna Seynabou par rendez vous lay liggéeyee. Mm. dafa am ñi nga xam ne dañ lay woo rek bëgg a yegsi. boo jëlulee rendez-vous doo mën a liggéey ak soxna Seynabou hmm. da ngay jël rendez-vous rendez-vous bi Pikine Texaco lañ la koy joxee hmm. wala nga woote par WhatsApp direct hmm. vocal ñu wax la sa rendez-vous allah bu ñu mënee ci yow dara rek daa ñu la faj suñu mënul ci yow dara daa nga jotaat sa xaalis jërëjëf yàlla na yàlla def Sénégal kuy seet si moom lu muy gànnaaw buy ñëw dañ may woo <laughs> <laughs> waaw mi ngi doon mbokk yi kon ñu ngi leen may woo <laughs> jeex na tàkk ci woo rek daanaka di nga xam lépp incha allah incha allah ñi ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah suñu beneen numéro ak soxna Seynabou jaa ngeen jëf